salaamaaleykum mbokk internet dakar net point com comme ni ñu ko defee saa su nekk à chaque fois euh, à chaque fois rek dañu leen di andil ki nga xamante ni yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté ci wàllu làmb koo xam ne bu analyser rek nga ni moom mooy làmb kooku mooy Père Max Mbargane duñ def rek du dul jox ko mu ndeek mbokk internet dakar net yi après ñu di ko moom ci waxtaan Père ñu leen di dire ziar waaw euh, di la fay euh, ma mon fils di mm-hmm. kontaan ci yow di santaat yàlla bu baax di julli ci yeneen bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di kontaan lool ci toog ak yow. bu ko defee di tontu say laaj. am na solo ci site bu mag bi di Dakar Net. di Dakar Net mi ngi hmm. noonu alors mi ngi noonu kooku mooy Père Max moom moom lu ñu defee lu dul waxtaan ak moom ci wàllu làmb. Ah, Père ñu gis ne làmb ji am ay affiche yi nga xamante ni yu mag yi nga xam ne mi ngi suñu kanam bu njëkk bi ñuy waxtaanee rek mooy ah, bi nga xamante ni moo war a am na 20 février diggante Gouye gi ak Reug Reug nag naka nga gisee combat boobu. ni ma gisee rek mooy combat boo xamante nii coow li bëri na. ndax euh, Reug Reug dafa yàgg neex mbër yu mag yi dañ may moytu. site mhm. guy gi guy gi ne ko yàgg nga ma topp ginnaaw ba nee nga dama laa ragal nag ku ma jox avance bi ma jël te guy gi nitu kàddu la. Mhm. ci la nuy guy gi mujj nag jiboog promoteur bi. Mhm. ne jox leen ma ko ba mu xam ne man faalewu ko. muy combat bu am solo lool ci diggante ñaari xale yi. Mhm. rëg-rëg di def ay preuve am amagul defet lim bëri yëpp ay victoire la suma jumul treize victoire wala quatorze ak ñaari sans verdict mhm. sans verdict yi ci diggante Clinton la ak Pape Yekini mhm. nga xam ne litige boo amee ñu jox ko defet mu bind recours ñu kase ko def ko sans verdict yeneen yi mu bëri yëpp ay ndam lañ Mm-hmm. waaye ñaari ndamam yi ci yi gën a rëy nag muy digganteem ak Elton ak digganteem ak Gris ak façon ba mu leen daanee. Mm-hmm. ndax poids lourd da ko daan rëpp mais poids lourd nga bëre kuloo ko ba mu sonn yéen ko ba taxaw dóor ci suuf. Mm-hmm. ba mu jig dañ naan rëg rëg ñoom dañ ko ëpp maas. waaye moo leen ëpp doole. wala ëpp ñu ko doole. guy gi nag di mbër moo xam ne du defantu. buy fecc sax ci fulla lay fecc. bëreeg Ama Balde ñaari yoon mhm. te gis nañ nam demee rawatina bu njëkk ba ama daan na ko sax ci biir face à face bi mhm. biñ doon def 2S ñu songoo ama fëkk ko sànni mhm. waaye seen combat ba da ko bëriloo ba mu sonn mu daan gis nga diggam ak nees daa bëriloo nees ba mu mu taf ko sukkar bi ko ci nga diggam ak Siteu gis nga digganteem ak basoka kon mbër moom boo ko jëlee na ko sedd cër ndax mbër la moo xamante ne ni du defantu lépp lu muy def da koy def ci fulla ak fayda. Mhm. ba gis nga dingeen ngeen mu sorte sorté ma zos da koo dóor mu daanu. Mhm. kon combat la boo xamante ni ñaari xale yoo xamante ni wane nañ seen bopp ci làmb ba làmb boole leen ñu war a daje le 20 aussi tamit euh, per gis nañ Reug Reug ci wàllu communication bi am na ñu naan respecté wul guy gi te guy gi yaakaar naa ni ñi nga xamante ni jëloon nañ ko fi ku ci mel ni Ama Baldé gisoo bu mu ñëwee fi guy gi jaar ak moom. ak ñeneen ak yi nga xamante ni tey jii nii amoon na yaakaar que ni tey bu ñu jàppee gi euh, guy gi nañ ko daan est-ce que tey euh, Gris 2 lu mu foog ci guy gi est-ce bu ñu jàppantee loolu dina am. waa xam nga moom loolu la gëm ndax loolu la wax Elton ñu daan ñëpp ku ci nar dama la may dara soo ne damaa dis mu ne la ma taw mille mhm. su ma la jàppee doo doy kon moom loolu lay gëm te loolu lay bëre waaye nag. guy gi booy dajak moom da koy respecté ndax jëlul combat bi pour daanu mhm. guy gi boo xalaatoon ne bu jëlee combat bi day daanu du ko jël kon na ko gën a respecté jox ko ci ay it am na ñu ne am na ay manquement yu am ci côté Reug Reug ndax moment bi muy dajak ñoom Elton boobu mi ngi ci mbappat yi boobu la ëpp compétition bari na ñuy wax loolu mhm. kon combat la boo xamante ni daal boo ko respecté wul boo ko ñàkkee yaa ko xañ sa bopp mhm. alors aussi tamit père ñu gis euh, guy gi moom euh, bu arbitre sifflé moom day dox sa kaw ñu gis ni guy gi euh, rëg-rëg ne dina dóor guy gi dina ko jàpp dina ko daan te lan mooy avantage guy gi ci combat boobu noonu. waa avantage bi rek mooy euh, mu respecter rëg-rëg xam ne rëg-rëg du du du wax di tricher li muy wax moom la gëm. Mhm. boo ko respecté wul mën na laa yegg foo xam ne da lay daan te bërekat la. Mhm. te nag li mu def ci bëre rawatina bëre simple bi ba ci arène bi bëriwul ay moroomam yu ko def. Mhm. kon li muy wax waxu ko pour. bu lu neex nit ñi. Mhm. li mu gëm rek lay wax ndax ñim daan it loolu lay wax dama la may dara ma la jàppee dama lay daan te bu ñëwee loolu lay appliqué. Mhm. ñoom ñaar bu ñu jàppantee ku nekk tee si ngeen borom lan mooy avantage ku nekk. waaw boobaa ku ne ku ne bañ a may dara rek gis naa sax rëg-rëg naan ko mën naa laa may ba nga jàpp ba dëgër. Mhm. tamit di bëre guy gi naan dinaa la may ba nga jàpp ba nga dëgër est ce que loolu tamit. waa nit léeg mu wax la dara du ko def làmb signature day am stratégie. ndax boo la seenoo fit da ngay fetal bu ñu la seenoo fetal fital Mhm. làmb la nga li en général la nga nar yëpp doo ko wax mhm. da nga koy nëbb mhm. buñ jàppante mais daal mais daal mbër su ma sañoon nga respecté sa manino adversaire pour nga man caa génn wàllu xeex bi guy gi ku ne xam ne ne mën na jàppante mais rëg-rëg it ku mën jàppante la rëg-rëg nee na moo ko daax xeex père waaw non gis naa ne ñoom ñaar ñëpp dañuy xeex bokkuñ ni ñuy xeexee nag mais ñoom ñaar sax du du du xeex du seen du seen du seen avantage lu bëri. Mhm. bëriwul lu ñuy xeex ci combat. Mhm. su mënta ñàkk rek la ñuy xeex. Mhm. ndax li ëpp seen combat ci bëri la ñuy daan. waaw. alors mi ngi noonu yaakaar naa ni per euh, analyse na làmb bi ñu naan euh, guy gi ak rëg-rëg dañu demaate benn affiche bi nga xamante ni def na seen face à face temps yi passé muy euh, Bombardier ak Eumeu seen mu nekk devance bi nga xamante ni ñoom ñaar dañ ko war a bëre Bombardier daanoon ko. Euh, Eumeu Sène daanoon ko du moins léegi naka nga gisee combat boobu revanche boobu. muy combat bu day waar Bombardier ba léegi la mu xasoon génn gu ca ndax daf ne woon bi sama génération commencé bàyyi. Mhm. muy ñoom Tyson ak ñoom Yékini ñoom ceeg génn ñetti xale yi gën a ës dinaa leen daan. loolu waxoon. mu daan Balla Gaye bu mujj bi mooy victoire bi mu mujj jóge daan ko ñaari yoon. daan Modou daanu ci Eumeu Sène ñàkk titre roi des arènes mhm. làmb boolewaat leen jee mhm. jóge ci ndam Eumeu Sène bi mu ñàkkee titre roi des arènes ak na mu ñàkkee ndax dañ ko dóor mu daanu mhm. premier sortie mu war a daje koo xam ne woon ñetti xale yi naa leen daan daanu woon ci yow tey ngeen war a bëri mu war a jël si revanche combat boo xamante ne nii ku ci ne da nga am ci am ay avantage Bombardier am nañu ne boo xamee téye boppam ndax Eumeu Sène mooy huit si mhm. moom moo ko daanoon te ci victoire la jóge ndam lu rey soo mhm. xamee day téye boppam aussi euh, père rek gis ñii ne euh, Eumeu Sène mhm. taxaw di dóoranteeg Bombardier benn mbër rek la jik ci làmb ci ñii ne Tapha ñeneen ñu ko ci def xëy na mën nga ci am lu la neexul Eumeu Sène li ko gëm mooy jéem a buujat Bombardier bëri ci flanc yi di ko yër di génn Bombardier li ci bu jógee mën naa bañ a téye boppam mën na juum daanu. est-ce que Bombardier neex na jógal comme comme comme ni mu ko daan defee au ñu koy daan comme léegi nu mu paree jël taxaw ne loo bëgg ci combat bi te boo ko attaqué day xeex jàkkaarloog yow. waaw mooy li ma da nga koy rek làmb ay ndoxtu la loo def mu diis da nga koy wite leneen. Mhm. waaye Bombardier taxaw naan ko dóoral ma dóor la moom. Mhm. bariwul ñi mu jig ci làmb ji seen digganteeg Bombardier. Mhm. Eumeu Sène nag mbër la moo xamante ne nii ndaanaan la kët la mhm. mais daal su ma doon moom du ma taxaw di dooranteeg Bombardier jëmale bu kenn xamul damay jéem a bëri ci flanc yi ci sama jéem a rapidité mhm. ma bëgg koo yegg foo xamante ne balaa xalaat ma jéem koo juumloo mhm. Bombardier su ma doon moom damay téye sama bopp di direeku tam nu koy defee ndax kee mooy wit si man maa ko daanoon te ci ndam lu rëy laa jóge moom mu jóge ci defet ñàkk tiit ñàkk roi des arènes am Mhm. kon ku ci ne daa am lu la arrangé ku ci ne daa am sa avantage. Mhm. mais pe pression yi fan la euh, ñu gis ne Bombardier euh, moo euh, Eumeu Sène da ko daan ba Eumeu Sène moo loo daan ko moom moo war a ñëw jël si revanche ak titre roi des arènes bi nga xamante ni ñàkk na ko Bombardier jóge ci victoire mooy war a ñëw jël si revanche am ci moo loo ku ëpp pression ci ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp ay am pression ndax Bombardier ñu ngi koy téyeloo boppam pour mu bañ a juum mais dañ moom lañ daanoon. Mhm. nit bu lay daan nga war a doo toog rek te sa bopp su boobaa même buñ niiloon. Mhm. Euh, bombar Eumeu Sène da ko wax maa la daanoon. Mhm. te xëy na ba la ñoo bëriwaat mën naa fekk sax sa euh, nga bàyyi bëri. Mhm. kon moom foog mu jéem a wit si. Eumeu Sène bu mu dégg ñu ne mooy wit si rek mu dem xaru mooy wit si mais moo am moo daanoon. d'accord ci ak ci defeet laa jógee damay déedéet. ba pare de waajal beneen combat su ma jógee ci jee damaa war a am. Balla Gaye lu tax ma xaru di rey sama bopp. làmb ñaar koy def. lu ma làmb jox rek ma jox ko mais du ma xaru ñëw ne maa maa ma ma ma ma. maa jël ci revanche maa war a jël ci revanche. Mhm. ak Bombardier it bu sóoree na dañ ko daanoon. Mhm. mu xaru mën na jóg juum ci biir bëre bi. d'accord Eumeu Sène moo daanoon Bombardier waaye nag. Mhm. day waajal combat ci am kon warul ñëw di wanteer combat. kon daal calcul ci ñoom ñaar ñëpp la. ci ñoom ñaar ñëpp la. ndax Bombardier ci ndam la jóge ba pare di jël si revanche dama seen ñàkk ci roi des arènes. Mhm, ba pare di may revanche. ba pare di may revanche. d'accord ba pare am combat ci ginnaawam digganteem ak Balla Gaye. Mhm. kon ñoom ñaar ñëpp ku ci ne da nga war a respecter sa adversaire bañ cee juum. Mhm. lépp loo xalaat ne moo lay may ndam nga def ko. mais bañ a xaru. mais Bombardier dana am pression pression bi mooy. moo daanoon mu war a fayu te moom. wóorul xataraayu de dem ndax li ci ëpp Bombardier li ci ëpp li pour nga gis ko ko daan du yomb. Mhm. dañ naan rek moo daan boppam. moo daan boppam ba daanu. Mhm. essayé wul moom kon mhm. même man ngaa téye sa doo téye sa bopp rek taxaw maanaam bañ a jóg ci erreur bul jóg ci na sûr. na lay leer boo bu kurpeñ jógee dina dal. soo jógee di nga a jóg ci erreur. dëgg la waaw alors alors waa Père euh, duñ tàggoo euh, wax ñu ci combat bi nga xamante ni bari na coow trop muy combat Lo ak Ama Baldé nekk le 13 mars coow li bari na père combat boobu naka nga ko gisee am na ñu ñi jooti naan combat bi waruñu ko def arène nationale dañoo war a jéem a xool ni ñu ko defee euh, amitié naka nga gisee combat boobu noonu. amitié leen rek moom a ci jaaxal doon naa ko xalaat pour raison de sécurité pour mbëri pour amateurs yi ñëw ak di dellu. Mm-hmm. mais amitié su ma jumul am na benn vidéo ma gis ne dafa saisi sax ñu ngi koy commencé dina dafa mel ni chantier la ne. chantier la ne. ginnaaw ba nag chantier la ne lii di 22000 places moom la ñu am moo ëpp Demba Diop ay places. Mm-hmm. nañ ko respecté rek xam ne ñaari mbër yi ku ne mooy sa trésor mbër ku ne sa ku sa morom mooy sa trésor. mais yaakaar nga ne Arène Nationale Modou Lo amoon blessure tey Ama du bëre bu Ama amoon blessure tey Modou Lo du bëre. Mhm. kon bëri ku ne sa morom mooy sa trésor. Mhm. nañ waxtaan ak ñoom seen fans yi ñi leen di topp ñu waxtaan ak ñoom ne leen liñ leen soxlaa. Mhm. mooy na ci kaw supporté ba mais maak moom ñoo war a bëri. ma per wàllu wàllu public bi laay wax diggante Ama Baldé ak Modou Lo gis nañ ne Modou Lo euh, koñam rek xaj ñu arène nationale Ama Baldé nekk noonu kon combat boobu est-ce que gënoo yaakaar ne tey même bu ñu amee feeñ bi nga war a xam ne. mais promoteur baa ngi bëgg a def yaa ngi dégg mu ne même bu dem amitié. waaw billet bi du yomb. bu waree dem sécurité bi dina doy nee na bu ko waree yóbbu arène nationale. arène nationale. Mhm. nee na bu dem arène nationale. c'est que bu doonee amitié. Mhm. mën na doon fête. ndax place yi bëri na soixante mille place la billet yi dina mën a yomb ku ne mën a dem seet mu doon feet mais bu doonee amitié bu bu doonee arène national ligue nee na yi du yomb d'accord maanaam billet yi du ko mën a jóg rek man koo am pour ñu mën a segg ña fa war a dem d'accord dana fexet ba nee na chaîne de télévision yi ci Sénégal yëpp danañ ko wane mhm. waaw mhm. alors mi ngi noonu euh, ki ñu dalaloon à euh, chaque fois mooy père Max Mbargane euh, di nga xamante ne li ma leen wax rek moom mooy làmb man loolu laa ko tuddee duñ defee du lu jox ko mu tàggatoo ak mbokk mbokk internet Dakar ne di koy seetaan. waaw di kontaan rek ci bokk ak yow émission mhm. mais di wax nag lu ci rafet borom bi la lu ci ñaaw jaan yu xeebu léeg-léeg nag. am na ci mhm. mbër yooyu xam ne na ma père bugguñu ngay analyser. Mhm. suñuy combat ndax da ngay dugg ci suñu préparation. mais mënta ñàkk xale yi duñ la ñoom foo romb dañ lay wax père sa xalaat ci làmb waaw mais yaay yaay làmb li ma la koy waxee mais euh, daal <laughs> di wax rek ku ci ne na nga respecté sa adversaire mhm. bul mayee dara lu ñu la may nga jël ko que le meilleur gagne mhm. ñu ngi leen di jox rendez-vous yeneen jataay mhm. ak suma fiis jërë ngeen jëf